salaamaaleykum mbokk internetu Leewtoo TV ginnaaw mu ngi leen ñooy dem contentement jënd ak yéen sax suba ngeen leen di gën a fës si bopp xibaar yi laataa loolu nag damay ñëw di ma féetlu Assane Waala nuyu naa la. Ndeye Mbacke maa ngi lay fay di nuyu pour ñëw indi leen di gën a fës ci yenn kaay yi. mardi 9 février 2021 xëy ci mu njëkk roi des arènes double double meilleur lutteur ANPS vainqueur de la CLAF Modou Lo plus titré que Balla dëgg la Ndeye ni nga ko waxee noonu la tey journal suñu làmb dafa def benn comparaison entre comparaison entre Modou Lo ak Balla Gaye nee entre roi des arènes euh, trophée ANPS ak vainqueur CLAF Modou Lo plus titré que Balla Gaye en 15 ans de carrière Modou Lo am na 4 trophées gagné na CLAF CLAF moom mooy championnat de lutte avec frappe ba loolu mi ngi ko gagné de 2000 euh, entre 2007 nekk na également deux fois meilleur lutteur avec frappe benn trophée boobu ANPS moom moo koy joxe ANPS moom mooy association nationale de la presse sportive ñooñu chaque euh, fin de saison dañuy primé lutteurs yi. léegi nee trophée boobu Modou loo jël na ko deux fois jël na ko de 2015 2016 ak 2018 2019 Modou Lo nekk na également roi des arènes boobu mi ko euh, jëlee bi mu daanee le 28 juillet 2019 mu ñëw ci Balla Gaye nee na Balla Gaye moom trois trophées la am euh, gagné na claf claf mi ngi gagné de 2006 2007. Euh, nekk na également roi des arènes roi des arènes mi ngi ko jëlee ci Yékini loolu mi ngi xew woon le 22 avril 2012 nee na Balla Gaye jël na également trophée ANPS mi ngi ko jëlee woon ci saison 2012 2013. doomi mbër jaajëf bëre yàgg yàgg des na la mos a ñam moo tax journal suñu làmb ñëw ci nga xam te ne mooy ñaare fils de fils de Décolle ak fils de Falaye Baldé les deux de fête de l'arène. dëgg la Ndeye Mbacke les fils maanaam euh, doomi mbër yi la dikk xëy def benn jàngat ñoom euh, ci diggante Ama Baldé ak Boy Niang numéro 2 nee na Boy Niang numéro 2 ak Ama Baldé joue les trouble fête maanaam ñoom ñooy lëmbee euh, làmb ji nee na Ama jot na def ay jéego yu bëree bëree bëri moom mooy héritier kii di Falaye Baldé Falaye Baldé moom mooy benn champion boo xam ne ni am na 137 combats. nee na nag Ama Baldé daane na Malick Niang daane na Tapha Tine daane na Zos daane na Gouye ak euh, mi jëm nag ci Modou Lo ci combat royal bi. bi mu ci Boy Niang nee na Boy Niang daane na Baye Mandione daane na Garga Mbossé Lac 2 Sa Cadior ak Sa Thiès. jëm nag mooy Mouhamed Ali manager du puncheur de Walo. on va finir avec Eumeu Sène lan la gën a prêt pour affronter ce combat. dëgg la Ndeye Mbacke Mohamed Ali moom mooy manager Lac de Guiers ci écurie Waalo moom nag day dafa xëy séq waxtaan ak journal suñu làmb lu wax moom mooy que ne ñoom dañu bëgg euh, bu rek Eumeu Sène jógee ci combat boobu jàll ci waaye wax na également moom nee na pare na euh, la de Guiers pare na pour bëri le 4 euh, avril bi di ñëw ndax Gaston Mbengue nee na date boobu la prévoir pour dëgg ci combat bi Mohamed Ali nag nee na pare nañ ci bëri bi wax na également ci huis bi nee na huis clos bi comme mbas bi moo ko imposé nit ñi kenn mënu ko sañ a bañ moom rek moo fi sës kon dañ koy bëri. kon gars yi pare nañ pour bëri le 4 avril incha allah les Lébou veulent retrouver leur place fusion entre l'écurie dëgg la Ndeye Mbacke jeudi ba le passé euh, Leewtoo dalal noonu ci benn émission bu naan jotaay làmb Baytir Ndoye Baytir Ndoye moom mooy président écurie Yoff moom nag li mu fa xamle woon moom mooy ci objectif yi bi nga ko euh, falee bees objectif yi bokk na ci mu fusionné wala mu boole ñaari écurie yu nekk Yoff maanaam écurie mbooloo Yoff mbooloo ak écurie Yoff bi mu bi mu bi jiite mel ni na nag loolu am na ci ndam ndax dimanche bi passé def nañ benn AG ci ñaari écurie yi ñoom boole nañ seen doole te man ci doole boole seen doole bayti ndóol boobu lan fal président bi. te kan njënd mooy décès de leur coach Alioune Diop fëgalam super étoile et la ginnaaw bi Alioune Diop euh, génnee àdduna dimanche bi passé Alioune Diop moom moo nekkoon coach Lansar fëgal ak super étoile nag dikk nañ di témoigne fëgal la moom li wax moom mooy Alioune Diop ñoom ñoom ñëpp dafa nekkoon te Alioune Diop joué na ci lu bëri bëri ci carrière am nee ne li ko gën a marqué moom mooy Aliou Diop amutoon amul woon euh, xaaj ak seen ci ci écurie Lansar ñëpp la yemale woon ñëpp la respecté woon. Super Étoile moom lu mu wax mu ne li ko gën a marqué ci paa bi mooy que ne bés bu daan dajee moom danaan ko est ba léegi ci dese Aliou Diop lay nga xam ne mooy Massima Gama. oui nga ko waxee noonu la ginnaaw bi père Aliou Diop gaañoo également Euh, journaliste ñëw na ci moom li mu wax moo ne Max Mbargane pleure Max Mbargane pleure Aliou Diop Max Mbargane nag moom décès bi mi ko fekk ci hôpital ba moom ak président Cheikh Cheikh Ndoye je pense ñoom ñoo demoon jëli corps bi ci hôpital bu Grand Yoff bu CDO ñoom ñoo yóbbu corps bi moom ci événement bi yëpp mu wane ne rek ñoom ñoom ñett ñi nekkoon nañ ay xarit nekkoon nañ ay staff ñoom ñoo doon diriger staffu Lansar donc perte bi wala décès bi dina ko marqué Plus simple l'indem, Galas du week-end dernier à ah, Amdalaï, dernière femme à Hepatiska sur du lot. dëgg la Ndeye Mbacke ni nga ko waxee noonu la samedi bii passé euh, lamb dafa amoon ca Gambie kan moo ko tëggoon Euh, euh, moom mooy promoteur bi tudd Am Janko moom nag mi ngi ko tëggee woon am na laay mais bi mu ko tëggee ñaari mbër dañ ci ràññee bu baax muy Gandia Fama ak Batista 2 Gandia Fama moom moo jël léger léger 32 inscrits mu ñu 32 mbër ñoo inscrit woon mais au finish Gandia Fama moo daane final Reug Reug numéro 2 ci luur yi luur yi nag mu amoon na 20 lutteurs 20 lutteurs yi Batista ak euh, Pape Ndiaye sox-sox ñoom ñoo dem final mais Batista moom moo ko daal di nag mi ngi bëgg am lu neex parce que da daañu semaine yëpp passé nga jëloon na fa euh, benn tournoi tey mu laa ko affaire am daal mi ngi baax ci li sa mm, ca ca Gambia bi moom mu fay neex la record lañ jël lutte 66 victoires 53 défaites en 5 saisons grand yëf mbooloo s'accroche dëgg la euh, record ginnaaw bi ñu ci suñu laa mu ñu jël ci record record moom bilan la def bilan li gis ci saison cinq sa cinq dernières saisons yi ci Grand Yoff mooy que ne ñoom jot nañoo am cent vingt combats cent vingt combats yooyu am nañ ci soixante six victoires cinquante trois défaites. wax na 120 combats yi en 5 euh, durant les cinq dernières saisons am nañ ci 50 pour 5 55 pour cent de réussite dikk na dikk na également ci leader bu écurie boobu muy Zarko ak Mobile 2 ak Nandi Fall nee na Zarko moom dafa exilé Zarko depuis quelques années mi ngi nii bëreetul dafa dem États-Unis nekk ci ay activités am dikk na également ci Mobile 2 ak Nandi Fall nee na ñii daal instant yi moom kenn xàmmeetu leen. ba léegi seulement deux défaites en quatorze combats Pakala la seul talent doo on a encore besoin l'arène. dëgg la Ndeye Mbacke toujours ci record record moom dafa dikkaat tey ci Pakala nee na Pakala benn talent la boo xam ne nii ba léegi làmb daf ko soxla ndax ci carrière am def na quatorze combats am na ci onze victoire benn nil ak ñaari défaite képp na ci am nee na nekk na champion def def leen nekk na champion du Sénégal waaye nekk na également de la CEDEAO. ñu ngi koy xaar di pakala mu relancé waat Léthie Ndong mise 1 million 500 en Gambie. oui ginnaaw bi mu fekkee benn kam benn gala ci bi bu réussir benn gala bu réussir la woon dafa réussir bu baax a baax a baax ci wàllu organisation la yëpp Léthie Ndong ñëwaat na war a tëjaat beneen galaa ci am Amdalaay loolu mi ngi amee le 6 ak le le 5 ak le 6 mars 2021 gala boobu nag mi ngi am Amdalaay ci village village boobu nekk Gambie mi ngi miser. un million trois cent mille moom nag dafa jël Ndeye Fatou aadama jël ak Ngor Ngom pour animer gala boobu lay bàqee. lamb jàngee bëgg a tukku gaam bi de. nga xam ne nag ñor euh, na quoi léegi moom ko xëy na gaam bi chaque weekend dinaa am benn gala bu fa am. lamb ji jàmbalee sax eh, euh, autorité yi nañ ñu jàppale ubbil ñu lamb Sénégal si gars yëpp dellu siwaat bëree fii suñu réew yaakaar naa loolu mooy tàkkal di la jaajëfal loolu moo nekkoon di gën a di la jaajëfal Ndeye Mbacke comme d'habitude di remercier waa Linguère di a baax a baax a baax di remercier Yacine <laughs> suñu caméra bi di jox dig daje internetu Leewtoo TV ba subaak jox incha allah di la jaajëfal Assane nekkoon ci xarale Ousmane bëgg naa la bu baax sama gars yi jaajëfal équipe technique Leewtoo TV yëpp jaajëfal aussi suñu ay internet ñooy gis commentaire yi di leen kontaanee yéen a tax ñu fi nekk yéen a ngi sago yéen a ngi ndamoo leen indi li gën a si bopp xibaar yi mooy suñu yitte leen jox di daje ëllëg incha allah ci Leewtoo TV